ñëpp am mbégte contentement. li tax ma tew fii tey parce que sëriñ bi dañ leen tiitaroo. da nekk koo xam ni sagu Sénégal nga. da nga nekk koo xam ni ñun ñoo la bëggal suñu bopp. léeg-léeg su ma jaxle sëriñ bi du ma la nëbb de. damay laqatu wax juróom-ñaari sëriñ Abdou Karim Mbacké affaire dakantaw ñu naan mais nu mu demee nii man la sëriñ bi la woo mbàkk ku ko kon ñu ngi sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan maram sax waroon na ñëw mais comme dafa soj ma ne ko maram toogal parce que fi mu ne sëriñ bi soj doo ko ñëw moo tax daal toogal maram mu ki nga xam ne mooy jéewelu nation bi muy El Hadj Mansour Mbaye ba tey daa ñëw ci délégation Mbacke ah El Hadj Mansour ndeysaan eh? ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ñu ni ba Alaaji Mansour ñëw nga Touba ndeysaan sa dëgg dugg ñu ni fan nga ñëw ñu ni fan nga dugg ndeysaan ñu ni ci njabootu Serigne Fall ñu ni ba Alaaji Mansour kan nga seet ki nga xam nag dëgg-dëgg nag bu bu bu dul woon moom waaye dina bari ay agresseur ki nga xamante ni waaye waaye bu dul woon moom dëkk bi dina bari insécurité ki nga xamante ni waaye dëgg-dëgg nag ku jàq sax waaye dëgg-dëgg baayam ngay woo mhm. man mii <laughs> dëgg-dëgg maa ngi feneen ak feneen ak feneen waaye su ma jàqee dëgg-dëgg sëñ Fall laay woo waaye sëñ Fall mooy sëriñ Abdou Karim Ba mhm. dëgg-dëgg dañ koy ñaanal mhm. gudd fan a xéwal ak sutura ak ndam waaye waaye Mbàkke kum neex kum naqari Mbàkke dundal Mbàkke yàgg bi Mbàkke yàgg bi jërëjëf Mbàkke ñu koy tuub bu baax yàlla yàggal sa ah, man lii ah, na ci ñun lool mbégte contentement. li tax ma tew fii tey parce que sëriñ bi dañ leen tiitaroo. da nga nekk koo xam ni sax Sénégal nga. da nga nekk koo xam ni ñun ñoo la bëggal suñu bopp. léeg-léeg ma jaxle sëriñ bi du ma la nëbb de. damay laqatu wax juróom-ñaari sëriñ Abdou Karim Mbacké affaire dakantaw ñu naan mais nu mu demee nii man la sëriñ bi la woo mbakk ku ko kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan maram sax waroon na ñëw mais comme dafa soj ma ne ko maram toogal parce que mu ne sëriñ bi soj moo tax daal toogal maram mu daal di toog jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke Mbacke ba tey ki nga xam ne mooy bi muy El Hadj Mansour Mbaye ba daa ñëw ci délégation Mbacke ah El Hadj Mansour ndeysaan eh? mm. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp mm-hmm. ñu ni ba Alaaji Mansour mm-hmm. ñëw nga Touba mm-hmm. ndeysaan sa dëgg dugg ñu ni fan nga ñëw ñu ni fan nga dugg ndeysaan ñu ni ci njabootu Serigne Fall ñu ni ba Alaaji Mansour kan nga seet si ki nga xam nag dëgg-dëgg nag bu bu bu dul woon moom waaye dina bari ay agresseur ah, ki nga xamante ni waaye waaye bu dul woon moom dëkk bi dina bari insécurité ki nga xamante waaye dëgg-dëgg nag ku jàq sax waaye dëgg-dëgg baayam ngay woo mhm. man mii <laughs> dëgg-dëgg maa ngi feneen ak feneen ak feneen waaye su ma jàqee mhm. dëgg-dëgg sëñ Fallou laay woo waaye sëñ Fallou mooy sëriñ Abdou Karim Ba mhm. dëgg-dëgg dañ koy ñaanal gudd fan ak xéwal ak sutura ak ndam waaye waaye Mbàkke kum neex kum naqari Mbàkke dundal Mbàkke yàgg bi Mbàkke yàgg bi jërëjëf Mbàkke ah, na lii sëñ